tijani sama waay la jamiñal jaara busu wala man se bi jaara jurujub note de feeling Dakar Dakar live ak click Dakar ak MDTV Mohamed Diouf la ñu jàkkaarloo nii grand frère di la wax heureux ménage sëy bi yàlla na barkeel yàlla na bokk ci sëy a kawe lan ngay wax sénégalais yi euh, ginnaaw bi ñu ñëwee tey sa xew bi ay nit jugee Ndakaaru ku ne nit jigee ko ngir teewee sa bés bi tey euh, yéen kàddu koy jege jege ci. bon waa MDR TV ñu ngi leen di nuyu di nuyu euh, nekk di wax ni bon yëg-yëg bi kontaan vraiment kontaan parce xam naa ki ma yàlla booleel xam naa ki ma yàlla jox kon donc mën naa ni sens la. am soxna su mel ni moom ndax dama ko xam nag bu baax a baax baax ku ma xam la doo ko jël soxna am na ay qualité yu extraordinaire yu ma xam ci moom yu mm. ma soxla ci jigéen yu nekk ci moom yu ma gis ci moom ba téye ko kon donc bis bi mënta weesu bis lu rëy la ci moom it ndax xam naa ko. ndax euh, li la doon xaar. depuis des années. kon donc bu ko yàlla dogalee. ñu ngay feete tey ñu wax alhamdulilah rabbil alamin tey. Ah, kilifa yu mel ni yéen da ngeen di wër soxna yu yu am qualité c'est-à-dire euh, euh, des femmes yoo xam ne elles sont issues d'une famille de valeur yan qualité nga gis si soxna Nafisatu miy toog ba mu jaral la nga jël ko def ko sa moitié tey àdduna ñëpp ñëw teewee ko yan qualité nga gis si moom. d'abord elle est ku nëbbatu waaw nit ku nëbbatu la nit ku xam boppam la nit ku yaru la nit ku am personnalité la et nit ku am caractère la yàgg nañu comme ni ma ko waxee sànq xam naa ko bu baax a baax sañ naa ko bàyyi dem fii ba Kirikoro ñëw duma am benn arrière-pensée ci moom durant lu ñu nekk man ak moom mosuñu jote ci coow góor bien vrai que nit ñi danaa ñëw naa ko euh, nit ki nga àndal nii nit ki nga àndal lee mu ne nee loolu seen problème góor la am na droit def lu ko neex mais man jigéen laa damay sàmm sama bopp xam naa man maay kan personnalité boobu muy dégagé respect boobu mu am ci nit ñi ba pare fulla googu mu am ci boobu ndax dafa jafe léegi ah ci jigéen mel ni nga war a mel toog sa wetu yaay am sa fulla am sa personnalité xam sa bopp téye sa bopp surtout ba góor fekk la fa takk la. Mhm. waaw loolu dafa raar dama ko gis ci moom yi may wax nii amul benn bu ma ci évalué li may wax mën naa ni lu gën a tuuti ci moom laay wax nii. moom it noo ko tuddee moom Nafisat la tuddee waaye faa wutal ko tur yow. waaw la plus belle. la waaw. Ah? Ah. mais moom mënu mooy li ma la wax elle est plus que discrète dafa dafa dafa dafa laaxatu waaw sànq dugal nañ ci ci ci première partie bi ñu ko digalee ci réseau yi y bokkut beaucoup de sénégalais ñuy laaj naan Mouhamed Diouf est un lan moo waral coow li bëri ci moom waali di ko woy nga am décoration bu mel nii mariage royal bu mel nii est-ce que da ngay dëggal loolu non milliardaire ci ci xol la milliardaire ci xol la am nga nit bu sa xol rafetee nga yéene ñëpp jàmm boo amee dërëm bokk ak nit ñi boo amee ñaar dërëm bokk ak nit ñi bu nit amee soxla nga taxaw ci boo xewlee yàlla xam na ni yëgluwu man sama nit yëgalu ma leen xewle dama am sama benn waaye bu may waxtaan mun bul yëgle fii bu ma ko yëgloo nit ñi duñ fi xaj donc jikko la rek ak yar ak qualité loolu mooy alam boo ko amee ñàkkoo dara te loolu lañu suñu borom may ku wax Mouhamed Diouf wax Waly Balago Seck le centre du peuple yan kàddu nga yëkkati jëmale ko ci moom rawatina deseem bi nga xam ne magam yaayam di momi euh, jóge na fi yàggul dara yan kàddu nga njëkk a yëkkati parce que ku wax Mouhamed Diouf di nga wax Waly Balago Seck. Waly di ko di ko jaale di ko masawu ci ngoon man a moom déggante nañu di ko jaale di ko masawu gis nga presque garde rapprochée yi ngeen di gis yëpp ay 50 tiers ñoom ñëpp ñoom ñoo ñooy Thier dafa nekk ci moom sànq ci ngoon paas ma ko ñu waxtaan tuuti man ak moom bi ma coupé daf ni Thier dawal bisu Mouhamed Diouf doo ko tardé dafa nekk sama nit man ak moom dafa dañoo yàgg du tey mu nekk nit ku baax nit ku tabe nit ku xam boppam nit ku mën nitam hmm. waaw waaye dafa mën nitam. parce que seen dafa yàgg dafa mën nitam dafa nekk nit ki nga xam ni hmm. bu jàppee du bàyyi te ku mën sotti nitam la donc du ko masawu. ndax xam naa moom fu mu tolloon ci moom. lan nga koy conseillé ci album international bi waroon génn mu tombeek dese wu moomi ñu bëri di ko wax naan ko album bi est-ce que du xaar parce que am na dese yan conseil nga koy jox yow en tant que frère. bon li ma koy wax moo di ak dee moo ànd donte métti na trop nag moom it nekk jigéen gu baax nekk magam magam bu baax uufoon ko mën naa ni sax yaroon ko métti na trop. mais gëm naa ne tey bu moomu doon dund danaan ko waali eggale sa carrière liggéeyal sa liggéey ñun loolu lañ ko sant pour faire plaisir nit ñi pour faire plaisir boppam moom pour sax mën naa ne magam di tëdd ci àjjana macha allah la ko fay suñu euh, malaaka yi ma ne teeru dafa war a foncer war a gën a ñafe ba disque d'or bi nga koy xaare mu andi ko Sénégal

loolu lañ jiital ba pare boole ci nag bruit parce que dafa ànd ak loolu. Mhm. actuellement nii ñu ngi jàppale le candidat monsieur le premier ministre Amadou Ba. Ah waaw. bon choix la ba nga xam ni dama doon jàppale le président Macky Sall à le ministre de l' éducation nationale monsieur Cheikh Oumar Anne mu nekk nit ku baax nekk papa ci ñu nekk kilifa ci ni du ñu tette nag ci politique. donc le président Macky moom lañ fi teg moom moo tànn candidat am kon bu ñu jàppalee Amadou Ba dafa mel ni le président Macky lañ jàppale. li tax Idrissa dëkk Thiès ngeen bokk kilifa suñu lépp la te gis nañ liggéey bi mu doon liggéey biir cees taxawaay bi mu am biir Thiès mais xam nga li naan ki ne ki ne di rien constant ñun dañoo nekk ay sénégalais bokk ci dëkk bi nekk ay ndaw nag. war a bokk ci ñuy defar dëkk bi war a bokk ci ñuy changer dëkk bi lii xëy na yàgg na changement lañ soxla suñu biir dëkk bi te li mën a mën a xamal mooy cees yàlla may na fi la nga xam ne ku ma fi àndal di nga gañ a Thiès ak ku mu doon fii laa ko waxee waaw xam nañu non déggoo man la cees xam nañu bu baax kuy Mouhamed Diouf sama bi bu mu juddoo yàggul mm. un an la def mais barki Demba Ndiaye organisé naa fii ci stade laa ko yóbba ah. mhm. nit xaju fa. donc euh, mhm. mais c' fort possible. waaw parce que Thiès dañ ci bokk dañoo bokk ci ñu ko war a defal ñoo war a bokk ci ñu ko jëmal d' abord politique ku wax politique wax social. sànq da nga ma posé benn question ñun nit ñi dañu ñëw Mouhamed Diouf milliardaire man leen milliardaire ci xol la bi may am ñaar bi may am ñaar dërëm ak ñetti dërëm laa koy bokk ak nit ñi di dugg ci biir nit ñi li nekk nekk président d'ASC pendant huit ans muy jël coupe bi fi nekk yëpp départemental régional zonal dëkk ci quartier bu populaire nekk fa musuma reculer dugal biir Thiès nga dugg kër gu la neex nga fëgg ñu nga leen Mouhamed Diouf doo ci dégg ku ci waxal yàlla du la wax ni la Mouhamed Diouf def na lii lu bon lii biir Thiès kon donc bu ma nekkee biir Thiès am yéene ci ñoom waxuma la nekk candidat ci élection municipale mais mën na séntu leneen ngir liggéeyal Thiès ak liggéeyal Sénégal. alors Mohamed pour ñu tëj rek lan mooy sa force fii ba nga jàpp ni boo wootee nit ñi wuyu si la duñ tëj. waaw ah, force bi mooy li may wax rek lu ma am mbokk ak nit ñi jege nit ñi. xam seen i bëgg-bëgg xam seeni i soxla juddoo fi yaroo fi màggee fi xam li fi amoon ak li fi am léegi ñu war a ñëw andi fi changement bu extraordinaire parce que Thiès mën naa ni c'est la deuxième ville du Sénégal à part la ba xam ni mais dafa war naat dafa war a weesu fi mu toll nii te jot na pour ñun jeunes ñun laa wax ñu téye ko amee defar Thiès et c'est possible et je le li may wax ni moom lu leer la. jërëjëf di di di kontaan ci yéen d' abord ci suba ba léegi yéen a ngi fi vraiment jàpp ci bis bi c' était pas évident gis nañu am na amuloon benn temps ñu bari ñu leen sollicité mais ngeen choisir sama jëmm ju xeebu gi ñëw jàppale ma ci sama bis kon ñun amuñu seen fay. di gërëm aussi ñi nga xam ne teew nañ fi yëpp. di gërëm aussi ñu fi bëggoon a teew te am empêchement teewuñu fi di gërëm aussi. famille xale bu jigéen bi ma jël di gërëm sama waa famille di gërëm aussi xale bu jigéen bi ma jël ndax nit di nga ànd ak moom séntu ci moom alal ba mu téyu la ci moom dama leen di wax ni leen bi ma koy takk mm. damaa demoon waxtaani onze heures ci guddi bi ma demee damaa fekk yaayam moom moo jënd guro jënd tàngal jën leen moo may moo may un franc moo ko takk billaahi wallaahi wa kon donc kooku du alal la ma jàppe dafa am lu mu séntu ci man dañu wax benn jour man moom ñu ànd toog di waxtaan ma koy tooñ ni ko eh lan moo tax ñu def weekend yow àndi samay tànk yooyu di ko tooñ mu reetaan fekk li ma koy tooñ naa ko ndax dama ko na ko ba mu ñëw génn ko tegal ma ni dinaa la sëyal te caaxaanu ma ci sëy bi ma lay sëyal yaayam ni ma dafa ñëw benn jour ci moom ni ko ñaari ndaw ngeen te sëyu ndaw mag daf ci jàpp boo bëggee mu dem mu ne ko sama sëeg Mouhamed soxla wu ci mag ndax du ma def lu may mere ba mag di ci jàpp yaayam ni ma ta dama kaa xam dafa dugg lu mu wax lu mu waxee loolu laaj ci pare xam ne dina nga sëy kon donc kooku dañu koy sant di ko gërëm di ko wax ni ko na téye parce que jigéen ju baax la mais dafa am jëkkër ju ju nit ñi di wër de macha allah du ma tagg du ma du ma du du ma namu du ma mais dafa am jëkkër ja nga xam ne jëkkër ju mën a téye jigéen jëkkër ju mën a teral jigéen jëkkër ju xam valeur jigéen jëkkër ji du dul teg fit la jigéen kon donc loolu rek boobu bu la ko yàlla jagleel ngeen ànd gëm naa ne mën ngeen dem fu sori te incha allah dinañ dem fu sori bu neexee yàlla di gërëm aussi ñi ma bàyyi ci kër gi ñëpp vraiment mère bi paa bi parce que ñooñu awma seen fay ñooñu awma seen fay donc bu ma waxee ba ba ba terminé te tudduma leen rek day day nduru leneen kontaan nañ bu baax a baax vraiment affaire yi neex na yéen tamit mention spéciale quoi am na seen fay di daani sama waay la jàmm ñal jaara busub wala mañ se jaara